Thank you.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 أما بعد السلام عليكم بكو تلسبكتاتيري نقول نوي نبي إسلام موي السلام عليكم دي أمبكتي دي دجاج يين جي سونو تيم أقو ويجور mu nekk li nga xam ni tey lu jar a waxtaane la ndaxte dafa mel ni tey sunu ndaw yi dañoo réeree loolu bu ñu sukkandikoo ci alquranul karim muy waxu yàlla bari na ay aaya yu ci rot ci naka la nit ki war a sàmmanteeg ak waajuram kon ñu fas yéene tàmbali waxtaan bi alhamdulillahi alladi hadana waxtarana wattabaana wa min fadlihi istafana تفضلا منه وامتنانا وأنزل قرآنا هدى للناس وبينا وحكاما بارغة وفرقانا وقال تعالى واقدى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ربي سبحانه وتعالى من taala القرآن يالا دي ci ولا ورلنا Euh, ni bul jaamu keneen ku dul moom waroo jaamu keneen ku dul moom waroo jaamu jant waroo jaamu weer waroo jaamu asamaan waroo jaamu biddéew waroo jaamu sa papa waroo jaamu sa yar sa yaay bul jaamu kenn kudul dul yàlla mu teg ci lan wabil waalidayn wabil waalidayn say ñaari wéyjur yi ihsaanan na baax jëmale si ñoom kon gis nga li borom bi wax ci alxuraan leer na gannaaw bu mu la teree bokkaale di jaamu di koy jaamu ak boole ak leneen wala di jaamu leneen li ci toftal lu mu ci toftal mooy wa bil waalidayni ihsaana nga rafetal jëmale say ñaari way jur nahmaduhu taala ñoo ngi sant borom bi nga xam ne moom moo gën a kawe luy kawe moom moo kawe وهو وهو الذي بنعمته تتم الصالحات te moom yàlla moom la mooy ki nga xam ni ci ay ngëneelam la jëf yu baax yi di mote boo defee lu baax mu sotti rek yàlla ci ànd ngëneel la bi nga xam ni yàlla moo ko dogal bu ko defee lu baax loolu mën a sotti mu ni wa nashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah ñoo ngi seede nii amul benn buur amul benn yàlla ku dul yàlla waaw waxdahu moom dong la sharika lahu amul bokkaale ci nguuram amul beneen yàlla buy gérer jant ji be yàlla di gérer weer bi wala be yàlla di gérer déedéet loolu amul waaw la sharika lahu amul bokkaale waaw la sharika lahu awjaba taata alwalidayn moom de moo waral topp say waajur say ñaari waajur yàlla moo waral lool moo waral nit ki war a topp sa ay ñaari waajur xarama isyaanahuma moom de moom it moo araamal nga dëngee walla nga moy leen ñoom say ñaari waajur yooyu waaw wa xarama isyaanahuma وقهرهما ولا نغلن دي گد تاي ني گيس سي گوناي آه، ا دوينا وار گد ساي واجور دي خلوك ساي واجور دي تونغ ساي واجور امنا سي ني ديم باغا خامني صاح دا ني دور سيني اي واجور والله امنا با دم سيني اي تير ولا دي لن دي لولو ييب نيكنا اي جيف يو نياو يي سبحانه وتعالى ترنكم مني وقال تعالى برم بكوبي وهنا واخفض لهما جناح الظل من الرحمة نغا واتي سيم بقو يرمنده نغا واتي سيم بقو يرمنده نيال سي نياري ويجر وقل تنغا وخ ربي ارحمهما يو سما برم نغا, نغا يرم يرمل سما نياري ويجري كون جنغا دوم loolu moo ko waral muy ñaanal ay waajuram yërmande ak njëggal mu ñaanal ay waajuram waaye warul nekk kuy këdd ay waajuram wala di leen di tong wala di xulook ñoom wala ñu koy sant muy bañ waaw wa nashhadu anna saydina muhammadan abduhu wa rasuluhu ñoo ngi dellu di sedd ni sunub sang muhammad jaamu yàlla la jaamam la waaye ndawam la sayidul uzaama moom de moom mooy sangu ñi tedd ñi waaw ñi tedd ñi ñëpp lu waay tedd tedd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mooy sa sang waaw wa ashraful kuraama moom it moo gën a tedd kuy kuy am karaama wala teddaange afdalu man taxta samaa mom de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mom mo gëna tedd mo gëna tedd ku mësa nekk ci suufu asamaan wal qa'il mom mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni al jannatu tahta aqdami al ummahat mu al janna de ma nga ci suuf tànku yaay kon sa al janna ma nga sa suuf tànku yaay lu ngay dem fenen, soxla lu ngay sore lu ngay dem eh, ay kilomètre wala di wër leneen aljana nga bëgg ma nga sa tanku yaay teral ko de ko wax wax bu noy, de ko wax wax bu neex topal bànneexam comme lu mu dan topé sa bànneex ba nga nekké lire waaw kon eh, aljana yonente sallallahu alayhi wasallam sallam ma nga ci suuf tanku yaay اللهم فصل وسلم يو يال نغ مسل تنغ جمال على سيدنا تشنوب سانغ محمد محمد المرشد العام مومي خمني مومو يجبل لب واو امام المرسلين يرنت ياب مومو سن امام صلى الله عليه وسلم يرنت ياب keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëñaan eh, jógee eh, Makka dem masjidul Aqsa foofu yonent yëpp la yàlla dekkil ñoom ñëpp la ca Aadama ba ci Isa ñëpp a dekki yonent bi jiite leen foofu ñaari rakk ci la dawra tàmbalee rañaanam jëm kaw asamaan moo tax ñu ne imaamul mursalin wa miskil xitaam moom mooy dëtt moom mooy gëttu moom mooy gëttu bi nga xam ne mooy tëj yonent yi sallallahu wa sallama wa ala alihi wa sahbihi afdala salaatin wa salaam yàlla na ko yàlla musal moom yonent bi ak ay ñoñam ak ay àndandoom yi li gën ci xéewal yi ak ci mucc ibadallah ngeen jaamu yàlla yi barru abaakum baax leen moo lu la tere baax ci sa yaay lu la tere baax ci sa yaay ci sa baay lu la tere nga teral sa ndey ak sa baay barru abaakum taburrukum abnaukum bu ko ngeen ko defee rek seeni doom yi daal di leen teral boo teralee sa baay teral sa yaay sa doom ala kulli xaal da teral waaw wa ifu an nisaa naas fegu leen nag fegu leen ci soxnay nit ñi ci soxnay jàmbur yi taif nisaakum bu ko defee ñu fegal leen seen i ay soxna wa alamu wa lamu na ngeen xam anna saxat allah sànjub yàlla wala merub yàlla waaw fii saxatil waalidayn mu ngi ci sànjub ñaari way jur yi maanaam mu ngi ci meru ñaari way jur waaw bu ñaari wayjur yu meree rek yàlla mere la bu la yaa ñaari wayjur yu meree yàlla mere la wa an ridaahu da ngeen xam ni nag ngërëmu borom bi subhaanahu wa taala laa yakunu illa iza radiya ankum abaakum du am mukk yàlla du la gërëm mukk lu say ñaari wayjur gërëm nañ la kon foo mën a dem foo mën a jaar foo pexe boo mën a def ba nga sàggane say papa ak say yaay di yaakaaree feneen ngërëm nax nga sa bopp nax nga sa bopp du sotti waaw ak ku mu mënti doon nag waaw yàllaa ko wax waaw euh, bu ngeen amul ngërëmul waajur rek yàlla moom ak ku la mënti gërëm yàlla faalewu ko waaw waaw ak ku la mënti gërëm fekk amoo ngërëmu waajur يلا فعلي وكو ولا شيء يزيد في العمر ويبارك في الرزق مثل بر الوالدين وصلة الأرحام واو من أمر لي خمني رك لقنا من آه، يق ورسك ها أك دي يقي أي فن boo bëggee am wërsëg ak gudd fan nee na baaxal ci say waajur boo baaxee say waajur rekk di nga gudd fan sa wërsëg dina bëri waaw bu fa ñaari waajur yi nekkul tamit ah mu ni wasilatil arxam nga jokk yi mbokk jokk mbokk day guddal fan day yokk wërsëg bàyyi neewatu fi yaay neewatu fi waaw mais mbokku bàyyaa ngi fi magu bàyyaa ngi fi rakku bàyyaa ngi fi rakku yaayaa ngi fi magu yaay ngi fi waaw mbokk yaa ngi fi wasilatul arham waaw da ngay jokk mbokk jokk mbokk day yokk wërsëg guddal fan waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax waaw wa inda allahi ajurukum nga ca borom ak seeni ay waaw dig yi nga xam ni nag moom nga war a dund ci kaw suuf ak sa lépp Ah, ak turi tur yi yi am lépp ma nga ci registre borom bi subhanahu wa taala mu ni waqad umirtum liñ leen digal daal bi umirat bihi ambiyaukum la ñu digal seeni ay yonant yi rek lañ leen digal kon ndaw yi nga xam ni la ñu digaloon yonant yi moom lañu moom lañ la digal muy toppi ay wayjur topp jeunesse topp fukk de jeunesse papa wax nga ni ko nele yaay wax nga ni nga wiccax loxo ah nga gëdd sa ay waajur ah eh, nga tàngal seen ay xol loolu eh, lu jara moytu la bu koy def ku nekk alkaangay ma nga sa kanam waaw mu ne wa ma min amul benn yonant nag illa wa umira ببر والديه امول بن يونت بو مسا واتي تي كاو سوف لودول يالا ديغل نكو موي باخي نياري وي جورم واو واو كما جاء ذلك في محكم الايات كوم نمو ديكي سي القران نيمكو واخي واو ني جوكي سي اي ايه ييغا خامني مانغ سي سوره آه، آه، مريم من وقال وقال الله عز وجل يا yaxya borom bi subhanahu wa taala ma ngay wax ak yaxya ca suratul maryaama mu naan ko yaa yaxya xosil kitaaba bi quwa na nga téye téere bi ak doole maanaam na nga téye bu la ca nekk ci xikma la ca nekk ci ay santaane na nga ko téye bu baax a baax nga sàmmonteeg moom waaw mu ni wa ataynaahu moom yaxya boobu de yàlla neen jox naa ko xukma jox naa ko lu ñuy wax sagesse jox naa ko sagesse sabiyan boobu mu nga nekk gone nga kon gone euh, war na am sages waaye bul toog naan damay bàyyi ba am 60 ans ma door a jaamu yàlla damay bàyyi ba am 50 ans ma door a jaamu yàlla damay bàyyi ba am 40 ans wóorul dee day bette te fi la àddina soxlaa lépp soxla la nga am doole foofu nag nga war a jaamoo yàlla gis nga mu ni ko waxusil kitaaba bi quwa waxusil kitaaba bi quwatin na nga téye téere bi ak doole te bu ñu waxee doole gone koy am waaw waaw waaw tey naa xukma sabiyan jox nañ ko sagesse boobu mu nga nekk gone waaw wa xanaanan ñi def nag mu nekk ku lewet min ladunna ci وزكاة وكان تقيا mu nekkoon tamit ku dal lewet lool amoon tamit amoon tamit ragal yàlla wa barran bi walidayhi te doon baaxee nag ay waajuram moom yaxya boobu walam yakun jabbaaran nekkul woon agresseur nekkul woon ki nga xam ni dafay agressé agression verbale wala agression physique daaw ko woon def waaw walam yakun jabbaaran asiya nekkul woon agresseur nekkul woon tamit wooyu bi nga xam ne mooy yàlla dégg nga kooku ma nga boo demee ca suratul mariama da fekk aaya boobu mu ne wa qaala isa ibnu yàlla isa ibnu mariama ba tey ci même surat boobu ma ngay wax euh, euh, li qawmihi ma wax ñooñam inni abdullah mu ni man mii de jaamu yàlla laa isa loolu la wax man jaamu yàlla laa inni abdullah aataani alkitaaba jox na ma téere yàlla jox na ma téere wa jaalani nabiyan def na ma it ma nekk aw yonent wa jaalani mubaarakan mu def ma am ma loon ko am barke aynama kuntu fu ma mënti nekk barke daf may topp wa awsaani bi salaat te borom bi tamit digal na ma julli kon gis nga yonent yëpp doon julli comme ni julli di doon di julle tay non la yonent yi doon julle waaw wa awsani bis salat wa awsaani bi salaat wa zakat ak di joxe asaka de nga Isa la moy wax ñoñam ya de nga ne li ko yàlla sante mo ngi koy wax ñoñam ya wa zakat maa dumtu hayya fek ma ngi dund fek ma ngi dund kon nga gis ni jaamu yàlla bo majeure rek war na la amul âge buñ koy tambalé amul âge buñ koy arrêter bo am amna âge bi nga xamné nak dañ la ci war tagat tàggat di la ci entraîner jurom ñaari at ñu lay jangal naka nga wara a yalla ni ñu lay jangalé julli yoy yeb ah man nañ la ko tagat mais amul à la traité fek yaangi ngi sa sago Fek yangi ngi ak sa xel ah jaamu yalla dula wacc kon muni eh, maa dumtu xayyan fekk maa ngi dund yàlla digal na ma julli joxe asaka hmm, ak euh, euh, euh, nee na ma joxe digal na ko mu joxe asaka ak fekk fu mu fu mu fekk fekk mu ngi dund wa barram bi waalidati waaye it ma baaxee sama waajur sama waajur ndax Isa alayhi salaatu wasalaam ci ñoñam ya moom amu fa baay ndax noonu la ko yàlla bindee yàlla daf ko bind mu ne kéemtaan mu ñëw judd doon ki nga xam ne amul baay moo tax bu muy wax mu ne wa barram bi waalidati ma baaxee sama yaay ji walam jaal nii yàlla def mu ma nekk ki nga xam ne damay ngand ngandlu ah, hmm, ah, wala ma nekk ki nga xam ni damay damay bew walla nekk ku agresseur ba tey bu ñu setantelee aaya boobu suratul Maryaama yonent yu bëre euh, ñoo fay wax ay aaya yi nga xam ni ma ngay soññ ci góor góorlu ci aqu wayjur ak cër bi nga xam ni doom war na ko taxawee ak wayjuram waaw mu noonu kon ibrahim alayhi salaatu wasalaam mang mit mangay wax ma nan wa qala ibrahim wa qala ibrahim li abeehi mangay wax ibrahim mangay wax ak bayam wa muniko salamun alayka na jam nek ci yow bay sa astaghfiru laka rabbi dina la ñaanal njëggal ci sama borom innahu kana bi hafiya mom de sama borom nekk na ci ki nga xam ne ci man ku ma ku ma ku baaxee ku may baaxee la ku may uh, toppatoo la ku nekk ci sama ay mbir la daal uh, ci gàttal donc mu ngi noonu Ibrahima la wax baayam kon nga gis uh, way jur war nay jéggulul doom war nay jéggulul way juram waaye di ñaanal say way jur mu ni beneen yoon tamit moom it ma ngay wax ci lu jëm ci baaxee way jurmu mu yonent yàlla noox nuux alayhi wasalaatu wasalaam ma ngay wax wa qaala nuuxun nga nuux ma ngay wax rabbi axfir lii yow sama borom nang ma jéggal wali walidayya waaw nang ma jéggal man ak samay way jur kon jullit bi jeune bi saa yoo jullee ba sëlmal ñaan bi dee ko def ne nangay ñaan njëggal di koy ñaanal sa bopp di koy ñaanal say ay wayjur rabbi axfir lii wali walidayya bu fekkee dañoo génn àddina saa yoo jullee mën nga yónnee ñaan bi ñaan bi moo gën a gaaw rabbi axfir lii wali walidayya bu ko defee yàlla jéggal jéggalal la say ay woy jur mu ni wali man daxala beyti muminan ak képp ku ñëw nag sama kër nekk ab jullit wala képp ku bokk samay njaboot waaw walil muminaati waaw da nga defal ko tamit euh, jullit yu góor yeeg jigéen yi jullit yu jigéen yi euh, euh, ba tey borom bi subhaanahu wa subhaanahu mu ngi xamal ni mu ne salaasatun laa yadxuluuna aljanna ñett a ngi nii ñi xam ni moom duñu dugg aljanna xeetu àjjana sax du leen xeeñ moo ne moosu moosu mooy dul xamri kii naan sàngara dëkkee ko bañ koo bàyyi kooku du dugg àjjana wala aaqu waaliday ak ki nga xam ni day dëngee ñaari way jur yi mooy ñaari way juram vraiment leen defal teraanga di xuloo ak ñoom leen di gëdd tàngal seen xol guddi tàngal seen xol bëccëg lii daal ku ko dëkkee te tuuboo ah, ajjana moom du la xeeñ mukk mukk mukk mukk mukk mu ni ak kan troisième bi mu ni wal duyuus ak ki nga xam ni allazi yuqarribu alxubs fi ahlihi ak ka nga xam ni mu ngay xëcc di indi lu bon lu bon ci ñoñam ci waa këram mu ni wa man aqa waalidayhi wa man aqa waalidahu aqahu awlaadu ku dëngee sa waajur sa doom yi dëngay la rek wa kamaata diinu tu daanu waaye li nga leble rek moom lay moom lañ lay fay waaw li nga leble rek moom lay fay wala tujaada ala charrin illa bi mislihi fay lu bon nag ah du doon lu mel na loolu rek mu ni alquran mu ngi wax ba tey borom bi mu ngi wax ba tey ci alquran mu ngi wa wasayna al insana bi walidayhi ihsanan digal nañu nit ki ci ñaari way juram mu baaxee leen mu leen di paaxe même boo amul loo leen jox da leen di wax wax ju nooy da di indil teraanga da di jox ndox ñuy naan da leen di lalal ñuy tëdd dellu na nga nooy daal ak sa ay waajur waaw ihsaanan xamalathu ummuhu kurhan wa wadaathu kurhan nee na ndey ja ma ko ëmb ci coona وايد ممكن نمبل تشونا مني ويا لا طولي على إيها من وضعه وإقابه وعدله من أكا وانا تشونا أكا قد أمبمب جرم ينتي بير نف ما نف جور أمبلك واو أمبب سيبي بيجر مخاوشة ديه toppatoo ba ah ak la ca la ca nek mun halatam halam xalaamta salat amrahu fi kitaabihi al aziz ala lisan khatim rasulihi xanaa jàppuloo ci kàddoom yi yi nga xamne moy borom bu tedd bi jaarale ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wa min zalika qawluhu sallallahu alayhi wa sallam yaronte bi waxni ni inna allaha harrama alaykum uquuqa al yàlla de araamal na ci yéen yonent bi alayhi wa mu ne yàlla araamal na ci yéen ngeen di gëdd wala ngeen di dënge seen ay waajur yi surtout seen yaay wa waadil banaat wa waadal banaat ak di suul seen i doom yu jigéen yi maanaam di leen di rey amoon na ay jamono ku bu jigéen da koy ray da koy fagagal waaw yooyu yëpp yàlla da koy tere wa manaan wa haaj ak di xañ seen doomu jigéen yi la nga xam ni moom mooy la war a am waaw ñu dikk ci benn xadis ñi nga xam ni day wax ci ba mm, ñi nga xam ni eh, daal dañoo dañooy dañooy dañuy manqué seen ay wayjur te loolu dafa nekk li nga xam ni phénomène de société la phénomène de société la am na xam sax dañuy dem di wut seen ay yeneen yaay di wut seen ay yeneen i baay bàyyi fii sa baay bi la jur bàyyi fii sa yaay bi la jur ah sonn ci yow ëmb la comme weer bis ba jot bakkan ja ci des mu yore la ah nekk liir coono yaag li ca nekk ak ak toppatoo gone ni mu méttee ah mu lay surveiller sa yaay. mu lay boot di lay toppatoo di lay nax sa yaay da lay nax di lay berse di dab sa plaisir du nelaw mukk tànk nelawoo sañul lekk tànk lekkoo sañul naan tànk naanoo gis nga jaral dem ba nga xam ni sax bu ko situation yi laajee mu dem di mbindaanu ak di liggéey ngir toppatoo la nga dem ba nga xam ne nag am nga jëmb nekk mag am doole dem ba toll ni la neex nag ah nga jël ko sàggane ko teg ko fële waaw doo ko toppatoo doo ko xool defal ko garage ba ngay yóbbu ko mu nekk néegam ah te moom ret ba ngay nekk gone ak say jooy ak say tuur ndox ak say dem gannaaw kër ak sa ay woccu yooyu yëpp sa yaay da nga di lay uuf ngay ngay woccu ci kawam dem kër ci kawam di saw ci kawam mu metti lool mu lay gérer ci condition yooyu ba nga màgg tey nga nekk kilifa am alal am tur am lu nekk nga jël sa yaay walla jël sa papa dugal ko ca garage ba ah añam di koy fekk foofu reeram di koy fekk foofu ndekkeem di koy fekk foofu loolu lu ñaaw la loolu la ñaaw la loolu lu ñaaw la loolu lu ñaawa ñaaw la te aka bëre tey aka bëre tey aka bëre tey nga dem ba am toll ci doole am teranga ngay dem di wut ay yeneen bàyyi di wut ay yeneen yaay bàyyi sa ay waajur loo ca mënta yaakaar doo ko ci am ndax yàlla ko wax subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ba tey ci benn summa raaqima anfahu qila man ya rasul allah mu ni yàlla yàlla na bakkanam dog yàlla na faatu ñu ne ko waaw ko kan la yow ki yàlla yónni koy wax lii mu daal di qaala yonent bi daal di wax ne man adraka walida walidayi inda al kibr aw ahadahuma summa lam yadxulil jannat mooy ki nga xam ni nee na bu nekkee ay waajuram ba ñu magee wala mu nekkee benn waajuram bu mu magee ah te duggul ci aljanna maanaam daal liggéeyal ci moom lu ko dugal aljanna mu ni kooku laay wax waaw waaw mu ni kooku laay wax wa qaala alayhi salaatu wa salaam ngay wax ba tey moom yonent bi sallallahu wa sallam mu nga naan alkabaa'iru mu ni nag bakkaar yi gën a mag yi a ah, mu ni al ishraaku billah mooy nga bokkaale ak yàlla bàkkaar yu mag yi mooy nga bokkaale ak yàlla waaw yàlla moo la bind wërsëgal la jox la xel jox la dégg-dégg jox la discernement ngay xool di xàmme ah ngay gis defal la ay ngëneel yu bëre ay xéewal yu bëre mu defal la ko nga ne ko fa ñukk dem di jaamu leneen loolu si bàkkaar yi gën mag ci la bokk waaw walal mu ne ak lan waa uquuqul waalidayn ak dënge say ñaari way jur bokk ci bakkaar yi gën a mag yi la bokk mu ne ak lan mu ne wa wa gën a rëy xamuus mooy di giñee fase nag mhm. mu ne wa qaala sallallahu alayhi wa sallam ci beneen xadis ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngay wax mu ne mu ne minal kabaa'iri bokk na ci bakkaar yi mag yi waaw ñu ne ko mooy lan mu ne shatmu rajuli waalidey mooy waay buy saaga ay waajuram qaalu saxaaba yi ne ko waaw yaa rasulallah ay yow ki yàlla yónni هل يشتم رجل والديه نك لا نيت دي ساغاي واجورم نخ نيت دينا ساغاي قال نعم من كو من لن واو من يصب ابا رجل فيصب اباه نخ داي ساغا آه، آه، واي كو دلوكو ساغا بي واو ويشتم امه فيشت Fayasubu yasubbu ummuhu mu ni fa fayasubu yasubbu ummuhu fa yasubbu ummuhu bu ko defee bu saaga ndeyam moom mu delloo ko muni mu ne wa dafa dikk ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam muni ko yow ki yàlla yoni man dama bëgg digel ma dal ma may ma dem dal jihad, ya yonente bi niko ko waaw ndax sa wajur mu ngi dund mu ne ko waaw waaw mu ko demal nag ca ñoom nga jihaat foofu nga góorgóorlu def li li nga xam ni mooy jihaat ci say waajur toppatoo leen ah bu ñu magee nga toppatoo leen di leen sang di leen di jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan nga leen di fompal sa fi ñuy tëdd nga leen toppatoo yow loolu mooy sa jihaat mu ni wa qaala aaxaru keneen ki daal ni man axaqu naasu bi xusni saaxibati mu ni ana kan laa war a jox yow ki yàlla yónni fa qaala ummuka mu ni ko joxal sa yaay mu ni ko mu ni ko ku ci topp mu ni ko sa yaay mu ni ko ku ci topp mu ni ko sa yaay mu ni ci ku ci topp mu ni ko sa baay dégg ñeenteel yoon bi ci la ko door a wax sa baay kon mbokk yi euh, ñoo ngi ñuy xamal ni euh, liñ ñu joxoon ci waxtu mu ngi waaj a jeex mu nekkoon seen euh, waxtaan xam sa diine tey ñu indi loolu leen thème ci baaxee say wayjur ñu jëlee ci ay aaya ak ay xadis yi nga xam ni euh, mu ngay wax ci loolu kon mbokk yi euh, ñu mu nekkoon euh, xam sa diine ci baaxee say waajur ki lañ ko doon présenté muy seen mbokk ak seen xarit oustaz Ahmed Dicko ñu ngi leen di sant di leen di gërëm ci fi ngeen ñi topp ci banlieue FM ñu joxe dox daje. ba fii ak ay jamono incha allah asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatuhu. Ta vie n'est pas une simple histoire. Tes œuvres sont gravées dans nos Muhammad